ci seen dars bii di ruuxul adab ginnaaw bi nga xam ne amoon na taxawaay bu yàgg ci diir fan yi ñu passé ñu ñëw rek ci xàggaleegi yéen li nga xam ne moo desoon ci téere bi ñu ngi xemoon ak yéen ci baay di wax ne fi ami isnayni wa arbaina bada salasa asra mi tey ñu war a jël baay di wax ne samaytu dannas bi bi ruuxil adabi lima hawaahu min xikamin wa adab léegi nag ginnaaw bi nga xamee ne bàyyi def na nasiha bi ci téere bi boo xagsis fi mu ko war a tëjee mu ngi doon wax ci njeexit gane qad intahat nasihatul iqwaani halal iqtisaari misla ahlil aani mu ne qad intahat noppi na nasihatul iqwaani ma ne laayi biir ak mbokk yi ala iqtisaari ma def ko ci ab ténk maanaam laaye biir gi nga xam ne moom laa doon laaye biir mbokk yi mat na dama kaa tënk nag mel ni rek ñooñ jamono ndax nit ñi amuñ jot di jàng yenn téere yi suboba bayi mune loolu manko defi ami isnaini wa arbaina bada salasa asara mi ina tey nag ñu ñëw rek bayi mune samaytu tudeena zan nav mi woy wi muy ruhul adab tudeena ko bi ruhul adabi ci roy ay teggin mune woy wi dal tudeena ko roy ay teggin lu tax loolu lima hawaahu ca la nga xam ne hombu na ko min hikamin ci ay njëriñ wa adabin ak ay teggin mu ne tuddee naa way wi ruuxul adab ngir li nga xam ne ëmb na ko ci ay teggin ak ay njëriñ moo tax mu ne samaytu zannas bi bi ruuxul adabi li ma waaw min hikamin wa adab léegi nag baay mu ne mu'taziran inda dhawil albaabi wa munsidan qawla alfatal andaabi baay mu ne mu'taziran maa ngi sakku ngant nag inda dhawil albaabi ñaal borom xel yi mu def ko rek ngir teggin ngir suufel boppam mu ne maa ngi sakku ngant ci borom xel yi mu ne wa mun sidan daan maa ngay jéebaane xarulal fatal anda bi waxu ndaw la nga xam ne maanaam ku ñu sopp la ku jub la maa ngi jéebaane waxam ja lan la can sa waxoon mu wali bani ida wa isrina sanna maziratan maqbula musta sanna radiallahu anhu kooku mooy baay baay mu ne mu'taziran inda zawil albaabi wa munsidan qawlal fatal andaabi maa ngi sakku ngant ci borom xel yi waaye maa ngi jéebaane waxu ndaw la lan la can sa waxoon dafa waxoon ne wali bani ihda wa isrina sanna ñaal na ndawal ñaar fukki at ak benn maziratan ab ngant maqbulatan ngant boo xam ne mu ngi sakku ñu nangul koko mu sax sanaxu ñu rafetlu ko maanaam luy loolu can soo xam ne maanaam ndaw loo xam ne dafa am ñaar fukki at ak benn su bindee ak téere bu ko borom xam-xam yu mag yi wala borom xel yi jàngee maanaam buñ ci gisee njuumte nañ ko nangul njuum njuumte gate rafet rafetlu ko cay ñas dafa baax rek léegi nag bi loolu xewee yépp mu ngay ñaan nag mu nga naan fan fa bi dhan nazmi jamii al muminina ya rabbana bi jaahi xayril mursalina amin baay mu ne fan yal na nga jëriñ fan fa nga jëriñ bi zan na mi ci woy wii ma woy maanaam tere bii di ruuxul adab yal na nga ci jëriñ jami al muminina mboolem woy mu gëm ñi waxut muslimina waaye muminina yi la wax maanaam ñi nga xam ne àgg nañ ci dairatul iman mu ne yal na leen jëriñ ci sama woy wii muy ruuxul adab kon nga déggee ci ne ruuxul adab tok di jang rek njëriñ a si de ndeketem mbay ñaan na ne kep ko xamne ya yaa ngi xool bi yalla na jeriñ la te bay lépp lim ñaar yalla nangu nako motax mu ne ya rabbana e yow suñu rabbu bi waxul allahu wahul benen tur wa rabbu la wax mu ne ya rabbana yow suñu rabbu bi bi jahi khairil mursalina mu ne loolu yalla nang ñuko ko defal ci daraja yi ki nga xamne mo gën ci mursal yi wajalhu yalla nga def way wi xaalisan muy lu sell li wajhikal karimi ñaal sa jëmm ju tedd i mu ne yàlla nga def woy wi nga sellal ko ñaal sa jëmm ju tedd ji de yaa rabbi e yow suma rabbu bi yaa latifu e yow aji ñëwanti ki yow mi nga xam ne yaa yërëm bi ne fi yëpp ci àddina gi rahim yow mi nga xam ne yaa yërëm ku la soob ci àllaaxira ah nag bàyyi mu ne wala yaxrurka cey bum la wor wala ka bum la hormuk, bi hifzi nazmi nga sama woy Manam, maanaam ma way bul waru mukk ba bul ko mokkal lu tax kaw nii sa bengane gi ma nek ndaw bum la war mok be nga ne duma jang tirim bi fi biladil ajam dekk bi ma dekk ci rew nit ñu ñol ñi bum la japp bu nga ne duma ma wi nga am ay at yu bari dégg ne ndaw lu am ñaar fukki at benn taalif na téere tuddee ko ruuxul adab ah ndaw loolu de téere bi jarul ma koy jàng ndax duma si jëlee njëriñ mu ne la mukk de mu ne nekk gi ma nekk ndaw bum la war mukk ba jàng sama téere gi waaye dëkk gi ma dëkk ci der ci ci dëkk der yu ñuul yi bum la war ba nga ne doo jàng sama téere bi ñu ne foo teg li nga wax baay allahu yaxtasu bi fadlil man yurid wallahu zul fadlil azim wal murid oh fallahu yàlla tasu mooy jagleel bi fadlihi ngeneelam bi man yurit kum bëgg dégg nga wax ji mu ne yàlla ay jël ngeneelam bi jagleel ko kum bëgg moom mu bind téere bi ne bum la war nekk gi ma nekk ndaw nga bañ a mokkal sama woy wi kon nga dégg ne yàlla jagleel na ko ay ngeneel mu ne wallaahu yàlla zul fadlil azimi mooy borom ngeneel yu mag yi wal murid moom mooy aji ndamu ki de eh léegi nag mu ne qad qaala fi hadha al majali am amjadu qadimu taha maliki yu ahmadu bayit bii nag toujours dañ koy bàyyiloo xel mbokk yi ci ni nga xamee ne bàyyi fonkoon na mbooleem nit yàlla yi nga xam ne ñoom la fi fekkoon xoolal ci ruuxul adab téere bi mu njëkk a taalif mu ngi ciy wax ay waxu ki nga xam ne mooy way juram di Seex Ahmad Bamba mu ne mbir mi nga xam ne maa ngi ciy wax am na ku ci waxoon ñu ne kooku mooy kan mu ne qad qaala fi hadha al majali am na ko waxon ci yef yi ci mbir mi may wax ñu ne koku moy kan mu ne al amjadu moy ki nga xamne mo doon yeesal diine koku moy kan mu ne xadiimu taaha koku moy bokk neeg ak yonant bi koku moy kan mu ne maliki yu moy ki nga xamne ci ngir ak imam malik la haju koku moy kan mu ne ahmadu moy ahmad bamba cay de nga wax ji mu ne mbir mi nga xamne ma ngi ci wax manam dekk ci rew yi nit ñu ñool ñi wala nek ndaw bu tax bum la war mukk nga ne doo jàng sama téere bi mu ne mbir moomu may wax nag am na ku ci waxoon ñu ne ki ci waxoon kan la mu ne qad qaala fi hadha ma majaali mbir mii daal am na ku ci waxoon kooku mooy al amjadu mooy ki yeesal diine qadimu taaha mooy bokk néega yonant bi al malik yu mooy ki nga xam ne ci ngir ak imam malik la bokkoon ahmadu mooy si ahmad bamba kon dëgg-dëgg xama fu taalibe yi nekk bay diingat waaye Cheikh Ibrahim jàngal nañu ak maandu te depuis njëlbeenu téeréen ñu ne lu Cheikh Ahmad Ahmad Bamba waxoon dafa waxoon ne fa lay sa yuksibu sawaadul jismi balaadatal fata wa suul fahmi <laughs> fa lay sa yuksibu mu ne déet muy faggu sawaadul jismi ñuulug der bilaadatal fata gàttub xel wa suul fahmi ak ak am maanaam gàtt xel wa suul fahmi ak ñaaw dëgg-dëgg maanaam nekk nit ku ñuul amee der bu ñuul rek taxul nga gàtt xel wala nga ñaaw dégg-dégg mu ne loolu la Cheikh Ahmad Bamba waxoon bu ko defee ndegem dañ jotoon digal ci sëriñ bi ne ñu xaaj téere bi ñaar ñu xaaj dars bi ñaari dars dañuy taxawal foofu dars bi buñ ñëwaatee insha allahu ñu jël juróom benn bind yi ci des mu ne yaa rabbana yaa bi jaa rabbi yaa bi jaahil haadi fa kufaana kulla sarrin gaadi kon buñ jël si haatee ak jamu ci payit boobu la ñuy commencé ñu jël ko ba fi nga xamante ne nag fala baay di daanelee nan tuma salaatu ma taslimi salaami ala nabil mustafa xayril anami loolu mooy wax ji kon nga déggee ci daal ne baaya ngi noonu li muy gàtt yëpp ñaan na ci téere bi li muy gàtt yëpp dénkaane na ci waaye li muy gàtt yëpp jàngal na jàngale na ci ak mandute kooku mooy Cheikh Ibrahim radiallahu anhu léegi kon lim doon jàngale ci bind ak bi mu ngi noonu dafa wax ne daal سميت ذا النظم بروح الأدب لما هواه من حكم wa way wii tuddee na ko ruuxul adab ruuxul adab nag buñ ko waxee mooy roy teggin ndax wala nga ne ruux ak teggin yi ruux ak teggin yi wala nga ne roy ay teggin ñaari prix yëpp nañ ma ko boo waxee ne ruuxul adab mooy roy teggin nga ne adab teggin daal ruuxam nga moom laa tuddee téere bi lu tax ma tuddee ko ko ngir lim ëmb ci ay njëriñ ak ay teggin maa ngi sakku ngant mooy mutaziran inda zawil albaabi maa ngi sakku ngant ci way way borom xel ya wa mun si dan xawlal fatal anda bi maa ngay jéebaane waxu can sax ndaw la ndaw la lum waxoon wali bani ihda wa isrina sanna ñaal na ki nga xam ne ñaar fukki at ak benn la bu bindee juum kay ma maasiratun mu ngi sakku ngant maqbulatun ngantam googu na ngeen ko ko nangul mustahsan ta ngeen rafetlu ko mu ñaan nag ne fan fa bi daan nazmi jamial muminina ya yàlla nga jëriñ boole mooy gém yi yow mi nga xam ne yaay suñu rabb bi ci daraja yi yonant bi nga xam ne moo gën ci yonant yi léegi wajalu xaalisan li wajika alkarim ya rabbi ya latifu rahmanu rahim wajalu defal woy wi xaalisan muy lu sell wajalu defal woy wi xaalisan muy lu mucc ayib wajalu defal woy wi xaalisan muy lu lu jàgg lan la ñeexal li wajihika waxut ci laahu de wajhu laahi bi wax xam nga nit ñi dañ war di seetlu wax ak baay yi xam nga baay dafay wax wajhu waaye mu ngi ko royee ci alquran kullu sey in haalikun ilaa waj lépp dina jeex ba mu des laaxu bi yàlla waxaat beneen yoon ne kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika mu waxaat beneen yoon ay ne aynama tuwalu fa sama wajhullaahi léegi nag toujours wajhu bi lay wax ndax laahu dëgg la wax wala wajhom ba كان موي وجه الله بي نك نونو غورغور لو تيو يبو طالبي ايه موتا باي موني وجهالو خالصا لوجهك الكريم يا ربي يا لطيف الرحمن الرحيم ايه موني ولا يغررك به في نمي كوني فقيرا في بلاد العجم بول ارموكو كي موكال سما وي وي غير نيك غيما نيك نداو اك دك غيما دك تي نيت ني نيول ني فالله يختص بفضل من يريد والله ذو فضل عظيم والمريد da ngeenel kat yalla koy tan diko jox kum bëgg te yàlla moom mooy jox ngeenel kep kum kum ku ko neex li ma len wax nag qad qaala fi hadha al majali al amjad qadimu taaha maliki yu ahmadu mbir mi maay wax ki ñuy wax ki nga xam ne moo yeesal diine ji ki nga xam ne mooy bëkk néeg ak taaha ki nga xam ne moo ho ngir ak imam malik mooy ahmad bamba waxoon na ca dafa waxoon ne fa laysa yuqsibu sawadul jismi bilaadatal fata wa suul fahmi kon talibe yi werante ak diingat sëriñ bu mu leen fi tardel Baay waxoon na ñu ne laa darrahum tanafusun fil faani mu ne bu leen oru mukk ci li nga xam ne dafay jeex maanaam nekk fi sama sëriñ mooy gën kii sama sëriñ ak gën kii loolu daf lay tardel ndax loolu ñooñu ngay werante ci ñoom ñëpp ay ay luy jeex lañ kon kay demal ci ki nga xam ne du jeex mooy jëm ak yàlla ji de kon taalibe yi nañ bàyyi werante yi waay dañ sàkku ji xam-xam kenn ku ci nekk na aju ci sëriñam ajoog dëgg mu jema xol haqiqatan la nga xamne mom la sëriñam indi mu top ko ndax kat ñom ñep ci yoon ak yalla bi lañ xoote ndax kat ñom ñëpp ben ben mbir lañuy doxal moy risala risala yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nak mo yaato nonu motax ñep tax nañ ci jemam ji waye mom ci dara ndax wax ci alquran ne wasiatu kursiyuhu samawati wal ard gangu naayam bi de mo gëna yaato asmanu juroom ñaar ak suufu juroom ñaar waaw ki nga xamne gangu bi kefe moo gën a yaatu asamaani juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar kon ak gangunaayam boobu fu muy ne a ah, loolu beneen mbir la de ñu dem moo tax mu ne fa lay sa yugsibu sawaadul jismi bi laadatal fata wa suul fahmi léegi nag buñ ñëwaatee yaa rabbi yaa rabbi bi jaahil hadi fakku faan naa kulla sarrin xaadi waaxiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamina